dolel sax. le premier round ba ma gaañu cheville bi. mais après suma ma déggee yuuxu yeeg bi rek franchement kontaan naa. Sénégalais yëpp laay remercier ah, Sénégalais yëpp tout tout le monde bi laa walaay. gars yëpp waaw asiko yi waa Medina xoolal tamit caada laa rek mais xama man sama mère waa Medina la. xool champion bi xoolal. bay ma ñor waaw oui ñëw ama bah gars yi. si waaw bah, méttiwul parce que premier suuf sax génnul mais champion la. Mhm. mais xama nga def naa combat yu gëna metti donc il fallait que ma demee xel. xel quoi bu mo ñew xama rage

Sénégal yëpp billaa wallahi Sénégal yëpp ñoo gën a dof fuuf dégg nga gars yi suba suba Medina la <laughs> waaw yi ñëpp gars yi sama gars xool ñi ñoo màggandoo ah ñi ñëpp ñoo màggandoo xam ñoo juddandoo ñoo màggandoo moom sama waay la ah xam nga maam ne ma xeex ba sonn mais dama rek ah. non non Bami ñoon moo ñu yar moo ñu fit Bami ñoon moom man ba ma gisee mu ñëw hôtel ba la ñëw moom ma escorté ñëw après loolu daf ma yokk doole ko parce que moom suñu idole la ñun dañu naan dem di ko teg dil di ko bindal ay soutien yoo xam ne amul xam naa fàtte na loolu pour encaisse si moom mille wala cinq mille nga di koy jox mu ñuy jox xaalis moom moo tax xam nga moom moom moom du mbër quoi mbalaka la <laughs> voilà voilà sama gars yi ñoom ñëpp Babacar papa moo ma jàngal xam nga Samsoulou daa ñoom maagandoo ñoo def ndoo

merci beaucoup maa ngi koy remercier affaire pour Sénégal la ñep kii dama yag dooleel quoi mom xam nga man affaire suuf def mais mom chaque jour dana ma da ngay teewal Sénégal France xam ngay def sama moyen dem combattre drapeau bi champion du monde champion d'Afrique maa ngi sama suma bopp billet avion dema ah. am moo xaruma ken des fois du ma accompagner kenn dem jël médaille yi Sénégal ah, moo Sénégal ah. voilà bonne chance pour le reste alors waaw amul problème merci beaucoup yéen tamit ah merci ah ñu suivre de de loin yéen ñuy wéttali quoi bu ñaa cee liggéey Thank you.